cey ginaar da ngeen foog ne dama jaaxle déedéet cey ginaar la ñu nekk nag fii mooy cey ginaar taabal yaa ngoone nekkati rek ci wër ba gis li nga xam ne rek mooy cey ginaar kon nag képp ku bëgg ginaar rek yaa xam li nga bëgg ci nombre de ginaar rek da ngay ñëw fii ñu daal di la koy jox ma ne la ginaar ci noo ko bëggee ak njëg boo ko bëggee njëg bu la ci gën a yomb rek nga ne kii la kon nag tey loolu lañ leen di tega ci taabal je ma leen di wax ne rek bégal leen moo ñu tax a te xam naa ne Sénégal dañoo bëgg ginaar ku ci mel ni rek sama papa suñu papa nijaay ili ñu ngi koy nuyu bu baax di ko wax ne cey fii la ah Horatio te ñoom lañ fekk si de du yomb gis sama arrière plan am na yeneen am na yu ndaw am na yu yem am na yu mag yëpp a ngi fi tey ginaar jërëjëf Sonia may wax ñi ni seetaan ne ginaar ka koy jaay ginaar la koy wooye waaye ka koy lekk ganaar la koy wooye mm-hmm. cey ginaar bu ngeen ko déggee xam na tur boobu yéen a ngi ko dégg a ciy ginaar la tudd fii nag ginaar yi fi am amul fenn ginaar yu ndaw ginaar yu mag ginaar yoo xamante ne bii seeni i maam ak seen i mamaati mamaati mamaat du ñu ay ginaar yu ndaw yu mag la ñu te diis te baax macha allah te mën a gudd fan lool fii la am ci ciy ginaar maa ngi togg fas yéene ko koo yàkkal fii ci ciy ginaar <laughs> xanaa ka daal di sukk daal di sukki ba pare lépp loo bëgg ci ginaar rek fii nga ko mën a amee ñoom dañ lay ravitailler ci nombre goo bëgg kon nag euh, li wax leen euh, ki ko bëgg nag ni ngay def mooy rek euh, da ngay daal di jokkoo ki nga xam ne moom la ñuy dalal léegi ma bàyyi ko mu nuyoo gis nga de moom mooy nuyoo ngeen ne kon nag Aline Mbaye accu de accu de accu ginaar accu ginaar accu ginaar accu ginaar <laughs> nice waaw ñu ngi lay nuyu Sonia ah non téye ginaar bu ma nee accu damay bàyyi damay ah, bañ gars yi téye ginaar waaw téye ginaar téye ginaar boo nee accu dañuy bàyyi dem ndax accu ci làq mooy accu waaw waaw ñu accu ñëpp ñun doon jëndee uh-huh. te jàpp téye ginaar waaw ok parce que téye ginaar benn initiative bu bees la uh-huh. waa ñun ñuy ay artistes comédiens eh, te chaque jour da ngay fexe innover parce que boo déggee baatu artiste mooy kuy créer ci création boobu ci lañ xam ni ñun waru waruñu bàyyi suñu bopp ñu organiser wu jël ci suñu as néew créer ci lii pour képp ku soxla ginaar boo jëndee tey benn ginaar dafay mel ni jàppale nga artistes yëpp parce que tey ni nga daan gisee artiste bi ñu ne feebar na wala nangam loolu la ñuy bañ mu dal génération bu bees bi di ci woo ñëpp parce que tey am ci yéene am initiative yo xamanteni dem nañ ba bëgg ah, mu yaatu ci gox yépp dem nañ ba bëggit jeunesse yi nga xamanteni dañuy taxawaalu ci koñ bi tay ñu jël leen du impliquer leen ci mu nekk lo xamanteni da fay créer emploi pour nekk bon citoyen japp ci réew mi ci côté bu nekk soñu dëkk ci dëkk bi liggéeyal dëkk bee ko gën. am nañ ba 1 kilo 500 am nañ 1 kilo 700 am nañ 1 kilo 1 kilo 600 waaw ba. am na yu ma gis yoo xam ne yooyu. ba de kilos am na. maanaam daal lépp loo soxla ci ginaar fi mu war a toll. Mhm. ba 500 kilos kilos sax. ñun dañ la koy jaay cey ji day feeñ ci fu ne ci ginaar yi. dinañ la jaay nombre boo xam da nga naan cey lii ma yor bii kilo de mosuma ko am. waaw cey ji duggaat fa. di def benn ginaar rek bi yëpp daal di lekk ci te loolu boo ko bëggee fooy ñëw cey ginaar. fii rek fii daal mooy bal mugg bal tàqamtiku bal mus ni mugg bal mu góob bal tàkkamtiku bal muslim mugg loolu de xanaa maa ngi koy jaww a dégg li ñu naan cey gi ci ne cey goo gis daal am na la can dugg fu ne cey gi da ciy feeñ fu ne ziar nañ la bu wér a wér a wér sëñ xaalim ñu ngi lay ziar ziar nañ baax baax yoo ngi ñaan uh, yàlla yàlla defal leen jàmm ni mu ko waxee rek uh, noonu rek uh, la demee ndax nit ñi dañoo yaakaar artis yi ak eh, ñi nga xam dañuy liggéey ci télé loolu rek lañu wara mëna def motax ñu xam ni ñun ay nit lañu xam war nañu participer ci réew mi mhm. loolu tax ñu boole suñu doole wa du comédie du comédie nekul da ngay nek animateur ci télévision rek taxaw di xolé da ngay motax ñu boole suñu doole def li nga xam ni moy cey ginar mbir la nak mo xam ne dañ ko yaatal mhm. ndax eh, am nañ ay place barab yu bari yo xam ne bo bëggee ginar bo demee ko fa am mhm. fu melni Malika fu melni ni Kër Massar ba ni nga ñëwé Pikine ba ay Grand yo ak fépp rek Dakar yëpp rek fu waay nekk rek boo wootee ci numéro yi ñuy waaju yoxe bu hmm. neexee yàlla waa Thiey Ginaar incha allah dinañ leen fekk si ndax euh, wax moom bu nit waxee ba daaneel euh, Thiey rek lay mujjee looloo tax lépp rek ñu def ko muy Thiey hmm. kon ku ku yebu rek ñëw ci Thiey gi te daal moom moo ko yor hmm. kon nag képp koo xam ne ñii xam ne artiste lañu ak animateur ak ñëpp ñu ngi lay bégal ci télé bi ngay xappi kon xappi loo leen maanaam génn ci sa poos ak comp daal di booy jënd ginaar ndax fi mu ne nii moom maanaam Sénégal ñëppay lekk ginaar Aliou Mbaye ma la

70 331 30 63. merci Sonia may wax ñi ni seetaan ne Aline Mbaye mii ngeen gis muy initiateur di ki nga xamante ne bii muy investir investisseur fas yéene jël alalam ak dooleem ak ñi mu àndal ak ñi ko gunge. fas yéene ko def ci ginaar xaadim bamba mii ngeen xamee ko bu baax muy sunu nawle di sunu xarit nekk ca Touba TV di animateur bu mag animateur religieux moom it cant yoo xam ne yéen a ngi koy organisé wala ay jàng wala lépp lu ngeen def mu doon ay xumbutéel lépp lu xumbute dagan ngeen woo ko mu daal di ñëw jox ay ginaar fournir leen ko ànd ceeg cey ginaar waaye cey ginaar cey ginaar bàyyi ginaar caaya bàyyi ginaar kos xanaa kon neex na